maa ngi leen di ziyaare di jox seen wàccuwaay <coughs> euh, di ñëwaat rek di waxtaan ak yéen di waxtaan ak euh, mbokk yi comme niñ koy defee toujours di leen yëgal ne suba mooy bis bi suba moom fu yëngatuwul ci Kër Massar rek yéen ay bañ euh, le président Ousmane Sonko moo woote suba Sonko moo woote Kër Massar suba voilà donc euh, sénégalais yi waruñu fa xej tali yi dafa war a fees bay tuuru tali yi dafa war a fees bay tuuru président Ousmane Sonko moo leen woo Sonko daf leen woo suba boo leen ñëwee mu wax leen ngeen dégg tali yi na fees bay tuuru te boo leen demee ngeen gunge ko këram dañ leen di sonde de xale yi lay waxal nag xale yu am kel dañ leen di sonde vous êtes en sondage dama ne suba président Ousmane Sonko moo leen woo pour ngeen ñëw wuyu si ko Kër Massar déggu leen ma de fu waay mën a nekk nag ci àdduna bi na nga ñëw nga wuyusi te boo leen ñëwee wuyu si ñëw leen ngeen wane seen doole te boo leen pare ngeen gunge ko te boo leen koy gunge ci kaw nag àdduna bi dégg leen boo ko laalee dinañ la dóor seen woy bi xam ngeen ko xam ngeen li may wax de xale yi laay waxal encore une fois président Ousmane Sonko moo woote Kër Massar suba c'est autorisé dafa bëgg ngeen gis leen te àdduna dañ leen bëgg a gis dañu bëgg fu ñu toll ñu gis des millions de sénégalais sur la place ñu gis leen ngeen wane seen bopp. suñu mbokk yi nappaatekat yi bay leen leen noonu ak seen oto yu mag ak seen ñàkk xalaat yu bari ne leen ne répondez pas à Macky Sall oto yu mag yooyu ngeen di gis Macky Sall di indi di leen nappee loolu kenn utiliser te ko ci àddina du Turquie du Amérique du France du kenn personne ne les utilise parce que oto yooyu boo sottee huile rek ci visa ci parabrise bi dootul gis te dafa rëy doo du xaj ci tali loolu idée yi dinaa leen ko jox ci kanam dinaa leen wax ci kanam naka la ñuy def oto yooyu maa ngi leen di dégg nag ak seeni ay nappaate nee nañu Sonko bu wuyu siwul dañ koy jëli waaw Sonko bu wuyu siwul dañ koy jàpp duñ kenn du ci man dara dañ koy yóbbu tëj ko ah mois de mars yéen a jàpp Sonko dugal ko ci biir kaso bi de mais yéen a gaawantuwaat bàyyi ko mu génn kaso bi ba pare yéen a ko njëkk annoncé sénégalais yi ne bàyyi nañu Sonko bàyyi nañu Sonko maanaam Sonko moom bu leen gaaw pataas bu tàng la xale yi bu leen leen faale Sonko est une patate chaude ñoom xam nañu dañ leen di napp rek suba Sonko a appelé à Kër Massar buntu kër Mariama Sagna fa Mariama Sagna fa ñu defee woon meetingu Mariama Sagna bi na ngeen dem kër masaar ngeen fees fa deel ba doo leen fa xej déglu leen ma de Sonko moo woote kër Massar Sonko moo woote kër Massar suba woo fa doomu sénégalais woo fa patriote ngeen ñëw mu wax leen ngeen dégg mu flex musculam il faut sénégalais yi nag ngeen di ngeen di doxee seen xel ngeen xam ñiñ ko sekkal jaaru band yiñ ko sekkal jaaru samba boy yiñ ko sekkal sàcckat fenkat ruubekat yiñ ko sekkal ay nappaatekat lañu ay buli amuñu fit ko moo woote suba Kër Massar bépp sénégalais ak fu waay mën a nekk bàyyi lépp looy def nga teg ko ci suuf te nga dem wuy ji te boo leen demee ngeen fexe président Ousmane Sonko gis leen yéen ñëpp mu gis leen bu taxawee ci podium bi fu waay mën a toll ci àdduna bi mu dem ba mënatu leen seen benn kàddu rekk soo ko laalee dinañ la duma makki sàll nañu dégg soo ko laalee soo ko laalee dinaa la dóor na ko dégg na makki sàll dégg ci biir noppam ne doomu aadama boobu waru koo teg loxo waru koo laal waru koo jege révolution mooy sone Sénégal dama suba na ñëpp dem Kër masar laa wax Kër Massar la ñuy woote dama ne bu fa xëj le lieu est bu leen fa xëj fees leen tali Kër Massar yëpp embarqué leen tëri Massar Kër Massar moom envahir leen ko ba mu mel ni tsunami ba ñu xam ne kilifa gee ñëw bu leen xaj foofu ah bu leen xaj Kër Massar dem leen ngeen feesal Kër Massar ba tali yëpp fees na na fees fépp bu leen fa loolu la ñuy woote dem leen suba Kër Massar fu waay mën a jógee jóge fa nga dem wuy ji le président Ousmane Sonko bum ñu gën a gore ah dem leen wuy ji parce que Macky Sall foofu mu toog mi ngi xool Kër Massar suba tele Sénégal yi yëpp télé adduna bi yëpp Kër masaar la ñuy jubat pour xool lan mooy force politique gu Kër Kër Massar parce que bu leen fàtte Sonko a appelé à un méga meeting wootewul meeting dafa am meeting am méga meeting ñaari affaires yu différent un meeting c'est un meeting un méga meeting c'est un super meeting dama ne encore une fois le président Ousmane Sonko a appelé Kër Massar c'est autorisé mbéga meeting la fa woote dem leen envahir Kër masar ba ñu xam ne ñëw ngeen def leen ko ci njëkk ak teraanga nag bu leen xatal Kër masar buleen leen wax lu ñaaw bu leen leen saaga bu leen wax dara génn leen en masse à Kermassar demain loolu la ñu woote le président Ousmane Sonko a appelé envahir leen Kermassar comme ay moustique déggu leen ma de il faut envahir Kermassar comme des moustiques na mel ni tsunami moo fa wàcc te mu doon ci jàmm nag envahir leen Kermassar boo leen envahiree Kermassar président Ousmane Sonko bu pare fexe leen ngeen gunge ko ba këram les jeunes boo ko laalee dinañ la duma pour Macky Sall xam que Macky Sall sache qu'il est intouchable que ce jeune là c'est l'espoir de toute l'Afrique Macky Sall il faut mu xam ne Ousmane Sonko mooy yaakaaru bépp Afrique fépp la du ñu bàyyi benn doomu aadama dañu kokkotalati c'est nous qui déciderons notre futur personne ne le décidera na ñëpp génn jeunesse bi sortez en masse bàyyi leen ñu leen di nelawuloo man damay dégg ay kaddu yenn saa damay yaakaar ne ñii nga xam ne ñoom waa APR yi di wax ñoom dañu fàtte ne Ousmane Sonko mois de mars ñoom ñoo ko jàppoon yóbbu ko kaso ñoom ñi ko jàppoon yóbbu ko kaso ñoom même nit ñi ñoo ko génneewaat kaso bàyyi ko mu ñibbi ñun jëriwuñu ko ba léegi ah personne benn avocat Sonko ñaanul liberté provisoire kenn ñaanul ñoom ñoo jàpp Sonko bañ ko jàppee ñoom ñoo gaawantu di négocier juge bi keroog bi muy bàyyi Sonko waa APR ñoo ko annoncé waaw bàyyi nañ ko ñibbi na ñibbi na voilà ñoom seen tala yëpp ñu génn waaw bàyyi nañ ko ñibbi na Sonko est une patate chaude Sonko daf leen ne dafa ragal ngeen jàpp ko Sonko a peur que vous l'arrêtez wala da ngeen xamul Sonko n'a pas peur que il faut aller l'arrêter voir dem leen ngeen jàppi Sonko ñun newuñu kenn bul dem jàppi Sonko dem leen ngeen jëli ko këram dem leen boo leen amee fit si vous êtes om si vous êtes homme là dem leen ngeen jëli ko Macky Sall rek moo xamul ne forsam am dee na comme ni El Hadj Diouf xamul ne banaanaam bi doxatul xam nga El Hadj gis ngeen ko noonu ni muy ñàkk jom noonu du gis ngeen ko ba léegi moom xamul ne li nekk ci biir tubéyam doxatul il faut mu génne ko di ko ballax ballaxe pour mu xam ne manta ta yeew looloo dal Macky sa force politique est morte maki musul am force politique li Ousmane Sonko am mooy force politique dama ne ñoom xam nañu luy dëgg xale xamul commandant euh, mag mag xamul xale xamul commandant waaye mag yi xam nañ ko gis nga le président Ousmane Sonko maki Sall xam na xel li nekk ci xelam Macky Sall xam na maki Macky Sall dof-dof lu lay def waaye wute naag dof na dem laali ko dama Kër Massar lañu woote suba Kër Massar le meeting est permis meeting bi autorisé nañ ko dañu ne sénégalais fu waay mën a nekk nag fu waay mën a nekk nga dem fu waay mën a nekk nga dem bu tontu boo nekkee ci mbeddu Dakar yi waa APR na la waaw Sonko bu wuy jiwul nañ ko jël laaj leen leen mois de mars ndax du ñoom ñoo jëli woon Sonko lu tax gardé wuñ ko ci biir prison bi ñoom ñoo jëli Sonko mois de mars pourquoi on ne l'a pas gardé dans la prison demandez-leur la question parce que quand ils ont pris Sonko le mois de mars ils l'ont emprisonné c'est les mêmes personnes qui ont emprisonné Sonko qui l'ont libéré de la prison du ñoom c'est les mêmes personnes wala du ñoom ñoom ñoo jàppoon Sonko mois de mars ñoom ñoo ko bàyyi mu ñibbi këram te xam nga biñ koy bàyyi wallahi ñoom ñoo gaawante ñu ne doomu aadama yi bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi leen problème bi mu jeex ñoom ñoo yàkkamti ñun amuñu problème pour ngeen dem jëli Sonko wala ngeen bañ koo jëli ndax boo leen ko jëli jee di ngeen ko bàyyi ñun loolu lañ leen wax ñun dañ leen ne soo ko laalee danañu dugg sa nangam taanu nangam taanu nangam taanu su ma ñëwee yeggali ko du ma ko yeggali tey nangam yi ma dajale yëpp ak keroog Dakar di ma jàmb ak limon beeg poobar beeg kaani bi yëpp du ma ko dugalagum fenn dama koy garder en attendant après laa koy yeggali yar xaw ma kan ngeen yàpp xaw ban nit ngeen yàpp ci àdduna bi nous on est en deux mille vingt trois yaakaar ngeen ne con que vous êtes vous maîtrisez le Sénégal vous ne maîtrisez rien saram de maîtriser wu leen ko dara maîtriser wu leen ko yan xamu leen dara jàngu leen jongu leen amu leen xam-xam Sonko kenn du ko laal dama leen ne ñun yéen a yéen ay tardé yéen a fi nekk di expliqué nous on n'explique plus ñun amuñu dara lu ñu expliquer ñu leen joxati benn stratégie sonko lañu leen wax ñun li ñuy décider dinañ ko décider sonko li muy décider dina ko décider bu décider fu ko décider neex fu mu neex fu ko neex lay dem dama ne lu leen neex rek wax leen bu leen neexee ngeen génn ngeen ne voilà sonko bu demul wuy ji dañ koy jàpp waaw bu wuy dañ koy jàpp lu leen neex wax leen nu on connaît la vérité vous vous la vérité yéen xam ngeen ñun xam nañu xam nga nee nañu kuy tux poon ak ku koy laxas na ko président di waxee nee na kay tux poon ak ki koy laxas ñoom xamante nañu on sa connaît nous on se connaît on est né dans le même pays dans les mêmes quartiers dans les on se connaît ku ne xam nga kuy tapet yéen boo leen amoon fit di ngeen jéem a utiliser justice di dem jëndi ay camions yoo xam ne modde na Macky Sall fu mu nekk ñu ngi koy nax demati na waa Turquie naxati ko jox ko camion yu nganda ngand yi ak bagage yi nga xam ne kenn doyeetu ko dara man Amérique laa nekk Amérique France itali Japon adduna bi yëpp dem leen ngeen xool ay marche ndax gisati ngeen fa oto yu mag yooyu oto yooyu jeunesse sénégalaise gis nga huile gis nga diw diw diw huile boo ko jëlee nga sànni ko ndey ci parabrise oto boobu bu defee ni essuie-glace bi léppay jaxasoo parce que huile ndox mënu koo raxas ils sont foutus bu boobaa xam nga lu ñuy def camion bi dañuy ragal mu takk ñoom ñëpp dañuy génn daw déglu leen ma de huile ku nekk booy dem da ngay yóbbaale diw yóbbaaleel mbuusu diw bu ndaw rek nga garde wala peinture loo ci mën a am rek gis nga camion bu mag bi bu déparé wutali la ci parabrise bi nga koy ne waccax c'est fini pare na day gaare ñii ils sont bêtes nee leen Macky Sall milliards yi mu jël ni yëpp xamu ci dara milliards yi mu jël def ko ci oto yu mag yi yëpp dara oto yu mag a mag yi déglu leen ma de encore une fois huile ngeen di jël wala peinture ngeen yor rek mbuus huile wala peinture wala bidon ngeen def ko ci lu ne rek wala def ko ci butéel boo koy ne waccax ci kaw pare pare na c'est fini oto bi day gaare seen soob yu bari yëpp après seen matériel yu ngan di yëpp du ñu xamante nuñ koy def dragon super dragon fan nga gisati dragon ci àdduna bi tubaab yi utiliser tuñ ko moom demati na waa ki naxati ko jël ay milliards am jox ko oto boo xam ne mënu ko utiliser il ne peut pas utiliser ces voitures ils sont meaningless des meaningless ils ne valent rien dama ne ne leen rek ñu dinañu defanteeg Macky Sall l'heure de la révolution a sonné dem leen wuyu ji le président Ousmane Sonko Kër Massar des milliers des millions de Sénégalais allez répondre au grand monsieur l'heure de la révolution a sonné dem leen wuyu ji président Ousmane Sonko résistance résistance résistance dem leen wuyu ji en masse Macky Sall suba ci palais bi lay toog taat bi di masse suba ci pale bi lay toog taat bi di maas suba ci pale bi la Macky Sall di toog di puub tubéyam di saw di puub di saw dem ci pale ba suba dem leen Kër Massar en masse ngeen dajaloo fa tappalekat yi suba du ñu nelaw parce que ñu ngi leen di xool ñu ngi leen di bàyyi xel dem leen fa en masse des milliers de Sénégalais, des millions, des centaines de millions de Sénégalais. Cette jeunesse sénégalaise, c'est votre futur que vous protégez. C'est votre futur que vous protégez. Vous ne protégez personne. bu la kenn nax protégé woo kenn sa bopp ngay protéger ak sa futur déggu leen ma de bu la kenn nax sa bopp ngay protégé ak sa futur que personne ne te trompe bu la kenn gëm loo ne yow xeex bii ngay xeex nit nga koy xeexal tu ne te ni pour Ousmane Sonko ni pour Ousmane Tounkara ni pour Mademba ni pour Massamba tu te bats pour ta souveraineté tu ba bats pour ta souveraineté yow li ngay xeex pour dagg buumu njaam la pour yow du pour kenn nag non non non c'est pour personne li ngay xeex du pour kenn pour yow la li ngay xeex pour dagg buumu njaam la pour yow du pour keneen dama suba ñëpp Kër Massar ñëpp Kër Massar la meeting dañ ko autorisé na ñëpp dem Kër Massar ñu daje fa incha allahu rabbi ñëpp nag la wax bu kenn des na fépp fees boo leen paree nag ngeen gunge ko boo ko laalee boo ko laalee dinaa la dóor boo ko laalee boo ko dinaa la ñuus wax leen ko Macky Sall mu dégg ko wax leen ko mu dégg ci biir noppam ne Sonko ne sera pas touché incha allah rabbi gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm incha allahu rabbi di leen joxaat dig daje suba bu soobee yàlla ñu ñëwaat waxtaanaat ak yéen bu soobee yàlla incha allah suba. wan leen ñu seen bopp bëgg nañ leen gis vraiment Kër Massar en masse en masse bëgg nañ leen gis Kër Massar en masse voilà jërë leen jëf maa ngi leen di sant di leen gërëm wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu